ci la ngeen jëf hôpital dalal jàmm bu Géejawaay li ñu l'observateur ne moo fa xew du jàmm ubbil yéenekaay bi ci juróomi téeméeri malade ak ñett ya fa nekk woppi cancer tëral leen fa juróom-ñaar fukk ak benn ci ñoom maanaam 76 jot nañu fa ñàkk seen bakkan machine scanner de simulation ba fa nekk paan ay weer a ngi ni yéenekaay bi nee nañu bokk na ci li ko waral astu di seen nas ndaw su yàlla nattoo feebaru cancer mi ngi wax ci l'observateur ne ci hôpital Dantec fa la xamante la dëkkee ci diggante liberté ga mu dëkk ak géejawaay ga dalal jàmm nekk nee heure bu demee dañu koy renvoyé ne ko dellu waatal ndax scanner bi dafa panne hôpital dalal jàmm l'observateur nee nañu dem na ba léegi mënatut a benn malade bu amee cancer li sub d'attente consultation bi heure bu ñu xëyee dafay gën di yëkk hôpital dalal jàmm ak la fa xew directeur hôpital bi mi ngi ci wax ci l'observateur bay dalal xel yi wàllu wiir géeram ba xel ak xol yi ñoo ngi ba léegi ci accident bu mitti ba woon ca six ca yoonu Kaffrine bi limu doomu aadama yi ñàkk seen bakkan ci boobu le accident sursoi ne nañu lim ba yokku na mi ngi léegi ci ñeen fukki doomi aadama ak benn yu ca ñàkk seen bakkan ki ci mujj ci blessé yi la bokkoon démb ci la faatu ba démb nag jotuñu ko woon a gisuñu benn mbokkam dégguñu benn mbokkam bi accident bi amee te fekkuñu ci moom wenn këyit wuy mën a tax ñu xam mooy kan dogal yi gouvernement bi jël keroog ngir wàññi accident yi ci réew mi soleil national mi ngi ñuy xamal ne gouvernement bi dogu na ci ko ni mu ware ci ndajem conseil def démb président sant na ministre yi ko war a doxal ñu taxaw ci nu mu gën gaawe muy ministre intérieur ministre transport ministre forces armées ak ministre finance Le Quotidien nañu mesure yo na am na ci juróom-ñaari mesure yoo xam ne tey ji ci lañ koy tàmbale doxal le nañu waaye suñu moytuwul nag saafara su jàngoro la nar a ndax ci dogal yi am na ci yoo xam ne transporteurs yi ànduñu ci bu ñu demee ba gisuñu lu ñu xam nag ñoom transporteurs yi automobile bi ko tudd wax essence ba koy dawal njëgu carburant beeg njëgu courant gi yokku ci réew mi ni ko journal Tribune jàngate mooy Macky Sall jekkali na góorgóorlu yi rapport Cour des comptes bi fi indi woon coow enquête dina kay ci la xëy mi ngi ñuy wax ne gouvernement bu Sénégal tàyyiwul di ci wax ngir leeral askan waaye it dalal xelu partenaire yi ginnaaw félicitation yu bailleurs yi nee nañu Cour des comptes mën nañoo compter ci premier ministre Amadou Ba ngir ñu gouvernement bi le témoigné ne nañu loolee nekkul mu Lo la mu nekk jamono ji yéenekaay bi nee nañu fa la tëjee débat bi jóg fan yi mu di Modou Lo kan la war a bëreel Modou Lo nee na du xaar benn mbër ñu ne ko ndax pare nga ngir bëri ak Ama Baldé Modou Lo ne leen suwéree na dem bëri ji ak Gris Bordeaux ndax bi ma blessé xaaruma woon combat Modou Lo ak Boy Niang 2 source wa nee nañu léegi tey mu taxaw mënaat sërub Modou Lo di biram ñi ngi ne ñu ci journal bi mu Modou pare na ngir jël booy Niang 2 mbër meneen muy laaj Boy Niang 2 la yéenekaay nee nañu moo di le tigre de Fass dafa bëgg a laata saison bi jeex te Boy Niang 2